on fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk ak xarit yu ñuy seetaan ci igfm point seen lëkkaloo ak youtube slash tfm dal leen jàmm ci seen rubrique icom icône notre icône du jour mu mel ni tey dañuy taxawaat ci jëm joo xam ni indi woon nañ ko jàlle woon fi bi leen di wax ni le lion béni a rugi boobu ñuy wax ci ki nga xam moo di Aliou Cissé le coach de l' équipe nationale du Sénégal bi ñu wax gàcce ngàllama ginnaaw bi mu qualifié équipe bu Sénégal fi nga xam moo di coupe du monde coupe du monde nag période nag boo xam ni ca dëgg-dëgg c'est une passion planétaire comme ni leen ko waxee woon keroog xam na ni Sénégal joué na dóor Pologne match nul ak Japon xëy na keroog bu nu gagné woon ca dëgg-dëgg suñu qualification doon na gën a leer waaye dafa mel ni match nul boobu dafa gën a yokk suspense bi mu mel ni football ay passion rek la ay émotion kese la ah jeudi ñu war a daje ki nga xam moo di Colombie te dañ ciy xaar Sénégal mën a génn dem fi nga xam moo di deuxième tour ki nga xam moo di Aliou Cissé en tant que coach c'est le décideur daf ci am responsabilité primordiale boo xam ni mooy classé aussi ñëpp moom la ñuy déglu wax nañ ko gàcce ngalaama ci li mu def moo tax tamit fii nu toll nii dañuy continuer di ko accompagner mais damay wax ngeen teg seen baaraam foofu ñu ñëw ci lu bëri ci wàllu footballu Sénégal parce que tamit dem ba doomu réew mi coach nu yóbbu nu fi nga xam moo di mondial donte ay jamono dañ yaakaaroon ni ay nit ci weex ñun foor mën a yóbbu waaye loolu dafa mel ni doon boobu dafay commencer di changer boo leen gisee football du Sénégal dama leen di jox jëmm ji ngeen di gis nii moom la ñuy wooyee Blaise Diagne Blaise Diagne ñëpp dañ ko xam comme un homme politique koo xam ni mooy premier nit ki taxaw ci assemblée française en tant que député waaye jëm moom intéressé wuñu fii mais doomam la ñuy wax bi ñuy wooyee Raoul Diagne Raoul Diagne nag boo leen ko déggee nekkoon na. footballeur bu def carrière professionnelle en France bi mu raccroché nag na Sénégal tàggat suñu équipe nationale dans le début des années 60 Raoul Diagne mi tamit pousse équipe bi dem ak moom nga xam ne bu ñuy def suñu i comme icône ci wàllu sport wàllu football tamit dañuy démarrer sous le contrôle de du doyen Ablaye Diaw mi nga xam ne ci dëgg-dëgg c'est une encyclopédie ci wàllu football ci réew mi mu mel ni amoon nañu entraîneur boo xam ne c'est un yougoslave boo xam ne aussi jaaroon na ci année 60 jëm année 70 yi ak ñeneen ñoo xam ne doon nañ jéem a tàggat équipe bi mais jëmm bi may bëgg na taxaw c'est les années 80 Otto Pfister moom ngeen di gis nii Otto Pfister c'est un Allemand en 1982 bi mu buggee dem ci éliminatoire pour qualifier ci Coupe d'Afrique bi génération ñoom Boubacar Sarr Locotte ñoom Christophe Sagna ñoom bay Fall ñoom Léopold Diop ah euh, jamono boobu nag metti woon na ci côté Sénégal parce que maghrébin yi ñun daan éliminé autofisteur amul woon la réussite pour yóbbu lu fi nga xam moo di Coupe d'Afrique bi amoon en 82 jëm année yi nga xam mooy 84 waaye kañ la ni amaat beneen entraîneur boo xam ne tubaab la donte ñeneen jàll nañ fi Souleymane Gaucher jaar na fi ki nga xam moo di Pape Diop moom moo yóbbu woon Sénégal keer 86 génération ñoom Bocandé ñoom Roger Mendy ñoom Amadou Diop Boy Bandi ak Cheikh Seck waaye bi ñu demee ba keer 86 ñu def les états généraux du football dem demul sax ci qualification coupe du monde yi loolu ñu bëri kaas nañ ko ku mel ni Bocandé waaye dañu indi vers 88 ki nga xam moo di Claude Le Roy jëm 90 Claude Leroy bi ngeen di gis nii moom tamit marqué na tuuti footballu Sénégal parce que bi ñuy qualifié fi nga xam moo di Algérie 90 moom moo ñu yóbbu woon bi ñu jugee ci 88 ñu dem fi nga xamante ni ca dëgg-dëgg mooy 90 90 ñëpp dañuy fàttaliku Sénégal Algérie la demoon Claude Leroy mu yóbbuwoon équipe bi ak ñoom Amadou Diop Boy Bandi ñoom Roger Mendy ñoom Racine Kane ñoom Thierno Youm ah ñu mel ni que Lamine Ndiaye équipe boobu bi mu demee tamit 90 Algérie éliminé ko ci demi-finale ñu jógewaat foofu. ki nga xam ne di Claude Leroy accompagné waat équipe Sénégal bi yóbbu ko Sénégal 92 muy anne boo xam ne ñun ñoo organisé Coupe d'Afrique bi waaye bi mu organisé Coupe d'Afrique bi fii ci Sénégal Sénégal aussi dafa toog Cameroun toog loo ko mu mel ni équipe bu Sénégal bu guerre 86 bi ils étaient vieillissants ci moment boobu Claude Leroy nee na il faut laisser l'équipe mourir sur le terrain ba tax na génération ñoom bokkande ñoom Amadou Diop Boy Bandé Racine Kane Thierno Youm Roger Mendy Cheikh Seck ossature boobu yëpp ak Lamine Ndiaye ils étaient vieillissants duggoon nañ ci trentaine yi ba tax na Sénégal perte coupe d'Afrique bi ci dëkkam ki nga xam mooy Claude Leroy bi mu demee nag ñu jël kii nga xamante moo di Boubacar Sarr Locotte boole ko ak ki nga xam moo di Bokande Bokande coach équipe bi yóbbu ñu coupe d'Afrique 94. bi nu demee tamit élimination Sénégal ñëwaat jëlaat Lamine Ndiaye dénk ko équipe bi ñu jógewaat foofu ñu gis ni que ca dëgg-dëgg le sorcier blanc dafay jox pour ñu indiwaat beneen jëm jëm bi indi nag kooku la ñuy wooyee. Peter Schnittger c'est un allemand deuxième allemand bi nga xam ni moo yor suñu équipe fii nga xam mooy Sénégal moom nag mu coaché waat équipe bi ci année 96 xaw na yàgg ñun tuuti ba tax na bi ñuy dem fi nga xam ni moo di mille 2000 2000 bi ñuy dem ci Coupe d'Afrique boobu Peter Schnittger moo ñu yóbbu avec une équipe boo xam ne ay jeunes ñoo ne nekkoon ñu mel ni que ñoom Zentra Pape Ñoxor faal ñi mel ni que Mbaye Badji ñi mel ni que euh, euh, Diallo la gardien de but Henri Camara nekkoon na ci ak Fadiga ak ki nga xam moo di Oumar Daaf waaye tamit 90 ñëpp xam na nañ astafurlah 2000 euh, ñëpp xam na ni Sénégal ni mu toogee ci kanamu Nigéria mooy bi ñuy envahir stade bi Sénégal bi mu toogee tamit ki nga xam moo di Peter Schnittger bi mu jógee foofu dafa sedewaat équipe bi ñu dem jëliwaat beneen entraîneur boo xam ni un sorcier blanc bu ñu yaakaar ni mun nañu yóbbu foo xam ni àggagun fa loolu moo tax kii di Bruno Metsu Bruno Metsu mooy jël équipe bi vers 2001 bi mu koy jël vers 2001 loolu indi na Sénégal avec la génération de El Hadj Diouf ñu gën a renforcer équipe bi moom moo leen qualifié fii nga xamante ni moom moo di ba ma ko 2002. Bamako 2002 nag bi ñu qualifié Bruno Metsu mun nañu wax ni ci entraîneur tubaab yi fi jaar moom moo ci def jaloore di gën a yaatu parce que dem nañ ba xam ni ba ma a été finaliste Cameroun gagné na au mais Sénégal amoon na qualification coupe du monde fële ci Namibie mu nekkoon fête boo xam ne ak événement boo xam ne kenn dootu ko fàtte Sénégal bi mu demee coupe du monde avec Bruno Metsu il a marqué son empreinte là-bas parce que moom c'est un français te français boo xam ne dafa jouer avec l'équipe championne du monde match d'ouverture comme ni leen ko waxee France ñu dóor ko 1-0 waaw loolu nekkoon na événement boo xam ni doy na ba tax na Sénégal émirats arab yi pour dellu si waat ñun ko loolu amul ci football ci lañ ko bàyyi mu dem ñu indi jëm bi ma leen di wan moom mooy Guy Stéphane Guy Stéphane il était avec Roger Lemaire ñoom ñoo nekkandoo ak Aimé Jacquet bi mu jëlee fi nga xam moo di Euro 2000 bi ah ñu ñi entraîneur bu baax la ñu indi ko mu coaché Sénégal en 2004 ñu dem Coupe d'Afrique mais ça a été aussi un échec ñu toog ci li nga xam moo di quart de finale Tunisie toog noonu loolu aussi indi na yeneen coow ba Guy Stéphane dañ ko mujjee dindi ñu ni kon nañu jël équipe bi ñu xool kaneen ku ñu koy joxaat ñu dellu soit ci suñu ay locaux parce que y avait Amara Traoré ak ki nga xam ni moo di Abdoulaye Sarr ñoom ñoo yóbbu équipe bi en 2006 mais bi ñu demee ki nga xam moo di euh, Égypte demi-finale ñëpp a koy fàttaliku Égypte éliminé ci bit bi nga xam ne Amadou Zakri moo ko dugaloon ci benn mbëkk ay moment dina tension ci défense bi ñu waxaat ni kon dañuy defaat li ñu njëkkoon wax indiwaat ay sorcier blanc pour ñu yóbbu footballu Sénégal bi loolu moo indi ñu indi koo xam ne ci Afrique defoon na ay preuve kooku la ñu wooyee Kasper Zak père Zak bi mu ñëwee dañ ko def combinaison ak ki nga xamoo di Lamine Ndiaye defoon ay jaloore ki nga xam ne teppee euh, Mazembe fii ci Afrique ñu yor équipe bi c'était vers la coupe d'Afrique de 2008 mais bi ñu demee foofu aussi dafa nekkaat beneen échec pour le Sénégal Kasper Zak dellu siwaatul Dakar ci coupe d'Afrique bi la jëlee avion ñibbi mu nekk geste boo xam ne ci dëgg nekkoon na geste bu xaw a gauche ñu bëri mere woon ko ci ñu jëlaat équipe bi dénk ko ki ñuy nekk vers 2010 jëm fi nga xam mooy 2012 on a fait appel à Amara Traoré encore dénk ko équipe bi mais cette fois-ci moom mooy jiital Abdoulaye Sarr nekk moom mooy acteur titulaire bi ñu dem ci 2012 catastrophe la woon Coupe d'Afrique boo xam ne Sénégal dafa def 3 matchs 3 défaites ñu éliminé nu ñu toog tomboon nag ak situation politique ci Sénégal boo xam ne dafa doy ki nga xam moo di Amara Traoré bi nangoo équipe bi ci moom aussi foofu am na benn événement bu fi am ma leen woon benn jëm bu ñu yooyee le chantre waaw kii moom li mu def dafa metti parce que dafa waxaale équipe nationale bu Sénégal ba ni ñu dañ koy jël ndakate dafa utiliser équipe nationale bu Sénégal pour fi nga xam moo di Arabie Saoudite ñu mën ko woo fay ko lu ëpp kon ñun daf ñu utiliser moment boobu pour que contrat am mu gën ko mën a defar ci naar yi nga xam dañ ko soxla woon après mu lâché équipe bi dem fi nga xam moo di Arabie Saoudite Pierre Lechantre def ni loo xam ne metti na lool looloo indi ñu indiwaat beneen jëmm un autre sorcier blanc bu ñu yaakaar ni mën nañ ci génne parce que defoon na ay jaloor fi nga xam moo di France ci équipe nationale de France génération Platini Dominique Rocheteau Tigana Fernandez kii moo di Alain Giresse Alain Giresse jël na équipe bi aussi yóbbu ko Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique bi gis ngeen ni mu demee jot nu génn suñu poule ci premier match mu gagné deuxième match bi mu changé équipe bi troisième bi aussi il y a eu des problèmes ñu ñibbi si waat c'est à part de ce moment nag la ni dañu jël réew bi ñu joxaat ko doomu mi mais kan lañ koy jox dañ koy jox comme ni ñu ko waxoon ci i comme icône koo xamante ni bañkat la woon koo xamante ni c'est laboyeur koo xamante ni te dëgg-dëgg am na fit fulla ak fayda il est très efficace kooku moo di Aliou Cissé depuis moom ci 2014 dañuy fàttali équipe olympique bi la yore woon defoon ay jaloore ak Karim Séga Diouf avec la génération des Sadio Mané ñu nekkoon ay xale bi ñu gisee ne nag ki nga xam moo di Giresse échoué na ci la ñu jëlee équipe bi nag dénk ko ki nga xam moo di Aliou Cissé ci la def qualification Coupe d'Afrique en 2017 2018 mu yóbbu na fi nga xam moo di coupe du monde mu nekk jaloore c'est la première fois doomu réew mi à part Bruno Metsu mu coach équipe bi yóbbu ko coupe d'Afrique yóbbu ko coupe du monde coupe du monde nag nekk loo xam ni am na ñu dafa diis ci moom am na ñu diisul ci moom mais de toute façon on a toujours confiance en notre entraîneur donc boo leen gisee ñu jaaral yéen fii wan leen depuis Raoul Diagne de fi nga xam moo di 1960 en passant par Otto Pfister jaar ci Claude Leroy jaar ci ki Guy Estafan Alain Giresse nit boo waxee ne dafa effondré wu parce que Aliou Cissé en ce moment ci coupe du monde bi c' est le seul africain bu indi une équipe africaine moom kese moo fay entraîneur nit ku ñuul suñu juumul moo fa gën a tuuti salaire mais ñun ñi ngi ci ginnaaw di ko encouragé donte Sénégal Japon bi am na lu bëri lu ñu ci war a jàngatax ba tax na match bi duñu xaar contre la bi dafa nekk match boo xam ni ci dëgg-dëgg il faut que Sénégal nag góorgóorlu ci match boobu pour mën a dem deuxième tour parce que foofu lan leen di xaar. kon nag ki nga xam moo di Aliou Cissé comme luñ leen ko wax le lion béni a rugi duñ ko sànni xeer duñ yàq yoonam dañ koy dolli fit dolli ko xalaat dolli ko confiance bàyyi ko mu gën a organiser waat équipe am pour li nekk ci xelam mu war ñu ci mën a génne loolu nekk loo xam ni danañ ko indiloon tey ci seen i comme icône mu mel ni dañuy ñëwaat coupe du monde bi c' un mois un mois de folie un mois de passion ñuy dikkaat ci yeneen waxtaan yoo xam ni ci biir mondial bi lay doon mais dañu toll foo xam ni diggante ñaari match Japon Colombie c'est crucial victoire la Sénégal di xaar foofu te lépp mi ngi nekk ci ay épaule ki nga xam moo di Aliou Cissé donte am na ñuy critiquer am na ñuy encourager am na ñuy wax il faut que ñu xoolaat schéma tactique bi parce que football schéma tactique la on te gagne sur des circonstances mais tu gagnes sur des circonstances ay secondes kese la ci la lépp di xewee kon nag dafa mel ni mbokk xarit ci ñu doon seetaan teg leen foofu seen baaraam ñu dikkaat ak yéen ci coupe du monde bi ak équipe nationale Sénégal bi nga xam ni. il vont nu faire rêver ñun gëm nañu loolu ca dëgg-dëgg maa ngi gërëm di sant ñi ma àndaloon ci wàllu xarala bi ki nga xam moo di Ibou Togala maa ngi sant di gërëm ki nga xam moo di Serigne Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu bëtu wax fàng bi nga xam ni moom la ñuy woowee caméra di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoo ñu jàppale ci organisation bi parce que dafa xaw a metti euh, sama doomu baay ma ngoon Fall mi ngi nekk fi nga xam moo di Italie Caramagna Piemonte soxna Mati Ndiaye xale yi bébé Mouhamed Fall moom lay may émission bi ki nga xam moo njokk Malick Dieng suma xarit bi nekk Londres ak suma turandoo Bara Fall bi nekk Albanie à New York maa ngi koy nuyu du nuyu Bassirou Dieng mon frère Abdoul Ahad Fall Cheikh Ibra Fall seen Jamil Mbacke dolli nu ñaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu leen wax ni nag affaire bi day am continuité bëgg Bamba ki nga xam mooy Pape Cheikh Seye jarama kon nag mbokk xar yi ci leen koy chuté ñu dem naa ne ndox bi gàtt rek leen seen baaraam wasalaam